salaamaaleykum mbokk yi soppe yi xarit yi yéen ñi saxoo dañuy topp si suñu ay émission suñu yaakaar seen mbokk Malick Diop ñëwati si beneen émission si seen rajo leer gi leer gi FM 97 point 9 fii ci Ndar ngir dégtalaat leen beneen waxtaan eh, niki ay taalibe insa waaye itamit di nuyu suñu mbokk yëpp yi nga xamante ni ñoo ñuy topp si suñu ay xët suñu yaakaar. si Facebook si YouTube si Instagram ak si TikTok di len jaajeufal bu baax baax di len dal ak jamm itam ci suñu waxtaanu lima ji kon tay lima bëgg waxtaané si mbirum Insa Almasi bi moy xam-xam bu yéeme bi nekk ci xam Insa te ben ci ndaw yi dafa xon li rax ci dolli lepp ngir xéewali xam Christ Yeesu sama borom di xam-xam bu xóot bu xel mënu ko takk moo tax ñàkk naa sama lépp te def ko ni mbalit ngir am cër si Christ mu nekk lu am solo e, dëddu nañu lépp ngir am lépp si Christ insa di almasi bi Euh, maanaam xam Yeesu Christ xam almasi bi euh, dafa rek weesu loo xamante ni dafay dafay doon xam-xam euh, lu ñu xam ci suñu biir lu mënul ñàkk la ñu xam ko waaye du yam rek suñu xam ko ni ab yonent ni yonent wala ni musal musalkat ngir ni musalkatu àdduna bi ngir mën a am dund gu dul ngir nekk doomu yàlla te suñu maanaam suñu dundin itamit soppeeku ni ko yeesu moom si boppam waxee moom si boppam yeesu moo waxoon ni dinaa leen waxaat bu bees si lu bees mu ni man maay leeru àddina ku ma topp doo ci lëndëm waaye di am leeru dund kon loolu la Insa si boppam moom wax ndax dañuy waxtaanee dëgg kan mooy Insa almasi bi ki nga xamante ni moom mën nañu gis si saar yi ñu jàng si linjil ni moom moo wax ni man maay leeri àddina si te ku ma topp doo dox si lëndëm waaye di nga am leeru dund mu nekk lu am solo lu ñu mën a xam si Insa moom mooy kan ndaxte moom moo ko moom moo ko jàngale waaye itamit ba tey si li linjilu yowaana boobu lu njil bi ñu dippee yowaana euh, dañ si gis lii li insa wax kon nag bu leen doom ji defee gor di ngeen doon ay gor tiki kon itamit dañuy gis ni insa dafa ñëw ngir goreel nit ñi dafa ñëw ngir goreel nit ñi kon xam insa dafa weesu rek Euh, yam si lu ñuy dégg ci moom waaye li nga xam ni moom ci boppam wax na ko jëmee si moom moom mooy kan kon gis nañu ne moom mooy leeru àdduna si ne ku topp doo dox ci lëndëm waaye dinga am leeru dund mu tegaas ni kon nag bu leen doom ji defee gor di doon ay gor tigi te ba tey bu ñu gisee ci injil dinañu déggaat instant mu wax ni dund gu dul jeex ki nag mooy ñu xam la yow jenn yàlla ju wóor ji te xam it ki nga yónni mooy Christ Yeesu mooy Yeesu Christ mooy nga déggee mooy Yeesu almasi bi Christ mooy almasi bi te cooba rek yàlla borom bi mooy képp koo xamante ni gëm nga ki mu yónni dinga am dund gu jeex te loolu Insa moom ma ko wax mu ne lii ndax lii mooy bëggu-bëggu yàlla baay bi képp ku gis doom ji te gëm ko am nga dund jeex te bis bu mujj ba dina la dekkal mu ne bis bu mujj ba dina la dekkal kon Insa si boppam moom mooy wax mu nekk lu am solo lu ñu mën a xam si insa donc dafa weesu rek li nga xamante ni moom lañuy ñuy dégg nit ñi di ko nettali si insa waaye li nga xamante ni insta moom si boppam daf ko wax si boppam ka doon euh, te mu nekk lu ñu war a xam linjil bu ñu ko déggee mooy xibaar bu baax bu Yeesu Christ du rek ñeenti linjil yi ñuy faral dégg ñeenti téere yooyu waaye mooy lépp li nga xamante ne moom mooy nekk ci bible bi te di wax si Insa almasi bi lamu mu war a def maanaam jàng nafar xalaat ci bible bi rawat na nag kóllëre gu bees gi mooy li gën ngir yeesal ñu wala ngir xamal ñu dëgg-dëgg kan mooy yeesu kon li ñu jublu si suñu waxtaan wii tey si suñu jukk wii tey suñu émission tey bi mooy fexe ba ñu gën a xam kan mooy yéesu ndaxte moom moo wax si bind mi noonu ñu tàmbali mu tàmbali si yonent yàlla Muusa ba si yonent yépp tekki leen li mbind mi wax lépp ci ay mbiram kon loolu la Insa doon defal ay taalibeem mu tàmbali si yonent yàlla Muusa ak yonent yépp mu ngi si linjulu Luk linjul bi ñu duppee Luk saar ñaar fukk ak ñeent aaye ñaar fukk ak juróom-ñaar noonu Insa doon wax ay taalibeem di leen xamal boppam te mu tàmbali si bind yonent yàlla Muusa ba si yonent yépp tekki leen li mbind mi wax lépp ci ay mbiram kon mu nekk lu am solo ngir ñu mën ko xam ñu mën ko gëm te itamit di ko topp mën koo bëgg te jafandu mooy si moom si suñu xool bépp ak suñu doole gépp ak suñu kàttan gépp ak suñuy xalaat yépp te loolu lu am solo la ci ñun niki ay taalibe insa waaye am na loo xamante ni ba tey ay mbóot la yoo xamante ni war nañ ko gën a mën a xam ci moom ngir gën koo mën a topp kenn si taalibe yi bindoon li rax sa dolli dëddu naa lépp ngir xéewali xam yéesu sama boroom di xam-xam bu xóot ba xel mënu koo takk moo tax ñàkk naa sama lépp def ko ni mbalit ngir am cër ci Kirist na yàlla fekk ci moom waxuma ci njub gu aaju ci sàmm yoon waaye gu aaju ci gëm Kirist maanaam njub gi yàlla sol ci kaw ngëm moom lay ittewoo xam ak doole ji ànd ak ndekkiteem ba bokk ci ay coonoom ba fekki ko ci deyam ngir mën a seddu ci ndekkiteem su ko mënee am kon li ndaw insa bi wax ci linjil ba tey ñu bare dinañu xam kàddu yàlla wala dinañu def xaddu bu yàlla lu am solo dañ ci farlu te mbir mu baax la doxalin itamit bu rafet la waaye mën nañu yóbbu rek ci xam nettali yi xam histoire bi am xam-xam wala sax mën nañu wax am diine chrétien yi taalibe insa yu bare yépp dañu jàpp ni bible bi comme ab comme téere téere diine te muy jàngale lu am solo ci diine ci suufeelu si gëm yàlla si am yërmande te ñuy def seen kem kàttan dundi ni nga xamante ne noonu la ko yeesu waxee ci bible waaye ñu fàtte li nga xamante fàttaliku li nga xamante ni itamit ba tey moom la yeesu almasi bi ci jamonoom waxoon kilifa diine ya ni leen yéen a ngi gëstu mbind yi ndaxte da ngeen yaakaar dund gu dul jeex dangeen ngeen see yaakaar dund gu dul jeex mbind yooyu mu tegaat si ni mbind yooyu nag far si samay mbir lañuy wax te bëggu leen a ñëw si man ngir am dund kon li ma wax léegi maanaam mën nañoo gëstu mën nañoo jàpp téere yi xam ko xam ni téere la maanaam dafa tënk diine lii lañu sant lee la ñu sant lee la ñu sant waaye téere yooyu seen njëriñ dëgg-dëgg maanaam mooy xamal ñu kan mooy insa waaye itamit ñu gëm ko mooy li insa wax kilifa diine yi yéen ngi gëstu mbind yi ndax da ngeen see yaakaar lu dul jeex mbind yooyu nag far ci samay mbir lañuy wax te bëggu leen ñëw ci man ngir am dund googu kon dund googu ñuy wër ci téere yi am na solo jàng ko gëstu ko waaye lépp lim ñuy joxoñ bind yooyu instant lañ ñuy joxoñ te kon dafay am solo lii ba tey ci liñ kàddu yi nekk ci mu ni kon boog ngëm ci kaw dégg lay juddoo te dégg googu sosoo ci xibaaru Kirist ngëm ci kaw dégg lay sosoo te sosoo te dëgg googu sosoo ci xabaaru Kirist maanaam xibaar bu baax bi ñu dégg li nga xam ne moom la Insa def te suñu ngëm sosu si loolu te waaye kàddu yàlla warul rekk yam ci ñun ci benn niveau boo xamante ni dafay yam ci suñu xel ci suñu naam nekk benn E, xam-xam waaye ngir mu am njëriñ dëgg dafa war a laal ci suñu xool dafa war a wàcc ci suñu xool bés bés bi nga xamante ni mooy bésu Pentecôte mooy bés bi nga xamante ni ni ko Insa woon digge woon taalibe yi matal na ko ñëwum xel mu sell mi te ñu tàmbali nag di waare di wax lu jëm ci ay mbiram te jamono ji nga xamante ni ndaw lii di Pierre di jàngale yàggul taxawul lu bëri si di wax nettali mbir yi nga xam ne ñoom ñoo woon si jamono jooju di nga xam ne moom la ñëpp doon ñurum ñurumee mooy la ñu defoon yeesu waaye dafa taxawoon si benn waxu yonant bu doon wax Joël te mu wax li nga xam ne moom waxoon mu leen almasi bi maanaam mu wax leen jàngal leen si almasi bi ni ko Joël waxee woon <clears throat> yonent boobu kàddu yonent boobu la leen fàttali woon ni almasi bi almasi yàlla bi bi yàlla yónni ngir mucc nit ñi nit yi xamante dañu gëm ci moom te ci waxtu woowu bi muy wax loolu ci la xolu ñu bëre daldi ci la laal mën naa wax xolu ñu bëre te ci biir bible bi dañuy gis ni ay yooni yoon yàlla dafay wax ak nit ñi ngir ñu mën dégg waaye ngir ñu mën a jël itamit décision ngir tontu ngir tànn yàlla dafay wax ak ñun dafay wax ak suñu ay xol ngir ñu mën a tànn dafa bëgg laal suñu xol jaare ci kàddoom te mu xiirtal ñu suñu tànn tànn bi gën ndaxte yàlla duñu forcer dara li nga xam ne moom la bëgg ñu def ko donte loolu la bëgg duñu ko forcer daf ñuy jox sañ-sañu tànn te ñi nga xamante ni nangu nañu kàddoom ñu mucc dinañ si jëlee mucc kon li nga xamante ni xam insa mën nañu wax ni loolu lay jur mooy ngëm li nga xamante ni moom mooy gëstu kàddug yàlla dafa war a jur xam insa wekk ci moom sa ngëm te loolu maanaam doon ndayu sa dund lépp li ngay dund sukkandiku ci loolu loolu moo tax bata ye si bibalu yi ñu gis si kàddu yi daajale nanu ma ak kiris sa bant ba te noonu du man may dundati waaye kiris mooy dund ci man dund mbindeef gi may dund nag maa ngi koy dund si gëm doomu yàlla ji moom mi ma bëgg ba joxe bakkanam ngir man kon boobu mu ngi ci benn téere bu nekk ci biir biibali bu ñuy wax te dippee galaat ñu gis benn taalibe yi di wax nan la dundu taalibeem mel ci moom naka la jàppee dundam dundam nekkatul li ëpp solo waaye li ëpp solo mooy ci mooy dund gi nga xamante ni mu ngi koy dund Christ mu dund ci dundam nekk lu am solo te ñu mën a gisaat lii ndaxte xol la nit di gëmee ba tax mu jub ci kanam yàlla làmmiñ it la nit di waxee ne ngi ci Christ mu ngi ci almasi bi ba tax yàlla musal ko kon ma bamtuwaat ko ndax xol la nit di gëmee ba tax mu jub ci kanam yàlla làmmiñ it la nit di waxee ne mu ngi ci Christ almasi bi ba tax yàlla musal ko kon su ko nit ki gëmee ci xolam daf ko war a wax itamit ci gémminam ne gëm na almasi bi yemul rekk ci gëm ne yeesu judd na ñëw na yonant la déedéet weesu na loolu moom mooy almasi bi ki yàlla tànn yónni ko ci àdduna bi ngir mu doon kii musal nit ñi kii jubalewaat nit ñi ak yàlla te yeesu dafa waxaatoon bamtuwaatoon kàddu goo xam ne am na yonent bu ko waxoon te si kàddu yooyu yàlla dafa doon wax ak yonent boobu wax si yonent boobu ngir fàttali nitu jamono jooju li nga xamante ni seen ay xol dafa dëgër dafa dërkiis seen xool dafa dërkiis bi yeesu di wax ni seen xool dafa nekk lu amatul benn yëg-yëg loolu mu ngi tekki ne amatuñu maanaam diggante ak yàlla comprendre tuñu kàddug yàlla waaye seeni xol dafa tëju ci kàddug yàlla yëgatuñu amatuñu yëg-yëg ci kàddug yàlla seen ngëm dafa nekk ab dafa mel na mën nañ ko wax euh, aada wala loo fa nekk dafa mel loo xam ne nañ ko wax ni que loo xam ne dañ koy faral di def rek mën nañu dañ koy wax tradition maanaam euh, mën nañu wax ni bidaa la sax dañ koy jàpp loo xam ne dañ ko war a def rek te duñ si sax bàyyi xel nga xam dañ koy def rek wala mën nañu wax itamit léeg-léeg mën nañu wax diine ndax léeg nit ñi dañuy def lu bëri dañuy mbubboo lu bëri ci diine di def mbir yu bëri yoo xam ne teguñu ko fenn mënuñu la wax lan moo tax itamit ñu koy def maanaam dañ koy def rek parce que dañ koy def te ñooñu itamit jamono ji yàlla di wax ak yonent yàlla boobu di ko Euh, jëmale ci xeet wi loolu la leen bëggoon wax seen ngëm noonu la meloon maanaam seen taxawaay kàddu yàlla noonu la meloon si ñoom waaye ngir matal kàddu yàlla wala ngir neex yàlla wala ngir matal li ko tax a jóg kàddu yàlla dafa war a am fekk ci nit ki ngëm dëgg ci biir xolam dafa war a fekk xol nit kooku taxaw temm ngir nangu kàddu yàlla ba tey ma jëlaat jukki ci linjil mu ni nun jot nañu xibaaru jàmm bi ñu bi ni ñoom waaye kàddu ga ñu déggoon jëriñu leen dara ndax boole wuñu ci ngëm ba ñu koy déglu ma bamtuwaat ko mu ni ñun jot nañu xibaaru jàmm bi ni ñoom waaye kàddu ya ñu déggoon jariñu leen dara ndaxte boole ñu si woon ngëm ba ñu koy déglu kon bu ñuy déglu kàddu yàlla dañ si war a boole ngëm dañ si war a boole ngëm ñun niki ay taalibe dañu wekk suñu lépp ci kàddu yàlla gëm yàlla gëm kàddoom war dégg kàddoom te bu ñuy jàng kàddoom itamit ñu boole si ngëm am na ay mbir yu am solo yu ñu war a xam si Isa almasi bi maanaam melokaanam ay kaddoom ay jëfam maanaam plaasam si li nga xam moom la yàlla namm waaye xam itamit digganteem relation am ak ñun ñi nga xam ne ay taalibe ñu waaye ak nit ñëpp waaye rawat na ñi nga xam ne ay taalibe moom si boppam yeesu dafa bëggoon ay taalibeem wax ñoom si seen jëmi bopp moom kan la si ñoom te ba tey si linjil mën nañu gis jukki bi li nga xam ne moom moo xewoon bi insa doon laaj ay taalibeem mu ni bi fa jógee yeesu dem sa diwaanu Césarée bu Philippe foofa mu laaj taalibe ya lu nit ñi lu nit ñi wax ci doomu nit ki mooy kan taalibe yi ne ko am na ñu naan Yaxya ñeneen ñi ni Ilias ñi des ni Yeremi walla kenn ci yonent yi noonu yeesu ne leen waaye ku ngeen wax ne moom la wala ku ngeen ma teg ci kaw loolu loolu Simon Pierre ne ko yaa di almasi bi doomu yàlla aji dund ji Yeesu ne ko barke ñeel na la Simon doomu Yunus ndaxte du nit moo xamal di waaye sama baay bi nekk ci kaw ci biir aay yi mën nañ ci jàng gis walla taxaw ci ay jàngat yu bare bu njëkk bi mooy war nañu xam suñu diggante ak yéesu moom mooy kan du rek li nit ñi di wax ni moom la du nit ñi li ñuy xalaat ki ñuy xalaat ni moom la waaye ñun ci suñu bopp ban ngëm-ngëm lañu am ci moom mooy kan beneen bi si mooy suñu xam yéesu dafa nekk luy jóge ci dëgg-dëgg lu ñu yàlla xamal dafay jóge si lu ñu yàlla xamal comme ni ko Yeesu waxee Simon barke ñeel na la Simon doomu Yuus ndaxte du nit moo la ko xamal waaye yàlla sama baay bi nekk ci kaw kon moom moo ñu koy xamal ñu mën a seetlu ni si lu jëm si eh, xam Yeesu eh, si lu yaatu lépp li nga xamante ne dafa tënk nguuru yàlla maanaam xam-xam xam-xamu nit doyul xam-xamu nit rek nit wala jàng kàddu gi daf ñuy xamal dinañ xam dinañu am lu ñu xam waaye révélation bi dafay li nga xam ne dafay jóge ci yàlla li nga xam ne yàlla moom moo ñu koy biral dafay jur si ñun ngëm gu dëgër boo xamante ne mënuñu ko nettali mënuñu ko expliquer parce que en général ngëm mënee su ko nettali dafay jafe lool expliquer ngëm moo tax ñu ni ngëm dafa nekk loo xamante ni yaakaar la gu dëgg gu takku si ay mbir yoo xamante ni dañuy ñëw donte gisuñu leen moo tax bi yàlla suñu borom wooyee suñu maam Ibrahima ni ko ñëwal dama bëgg nga jóge fii jóge sa kër ndey jóge sa kër baay dem si réew mi nga xamante ni moom laa lay jox ma barkeel la fa dama bëgg li nga jóge si li nga xam ne yaa ngi koy gis ndaxte mu ngi woon ci kër ay waajuram lépp a nga fa woon alal jàkk lépp mu ko doon gis léegi nag yàlla woo ko ci mu dem ci loo xam ne gisu ko mais Ibrahima gëmoon na ni li ko yàlla di wax am na ko kon loolu moom mooy ngëm dafay nekk loo xam ne mënuloo ko expliquer waaye yàlla dina def si sa xol takkute goo xamante ni yow di nga gëm li mu la wax te loolu dépendrul si analyse booy def wala bu la nit ñi di defal ak fu ñu ko mënti sukkandi waaye dafay nekk loo xamante ni benn certitude la benn dëgg la boo xamante ni benn yëg-yëg la boo xamante ni nit ñi mën nañ ko bañ a comprendre mais yow dafay nekk lu dëggu si yow loo xamante ni ni ma ko waxee léegi da ngay am sax jafe-jafe ngir expliquer ngir faram-fàcceel nit ñi lu mu teg moo taxoon taalibe yeesu yi amoon dëggu tàkkute googu moo taxoon tamit Pierre wax ne yow yaay almasi bi ki yàlla yónni doomu yàlla aji sax ji te loolu yàlla rek moom moo koy xamal nit jaare ci xelam bu sell bi ba tey ma jukkiwaat si linjil li nga xamante ne moom la yeesu jàngale si eh, ay dëgg yu jëm si xam ay mbiri yàlla mu ni sa jamono jooje yeesu wax na lii yow boroom asamaan ak suuf maa ngi lay sant si li nga ma nëbb si li nga nëbb yëf yi ñi am xam-xam ak ñi am xel te xamal leen gone yi waaw baay ndaxte looloo la neex Yeesu teg ne sama baay jébbal na ma lépp te kenn mënuma xam man doom ji ku dul baay bi kenn it mënula xam baay bi ku doom ji ak ku ma ko bëgg a xamal kon ñu gis insa fii di wax ni am na ay mbóot yu nga xamante ni ay mbóoti yàlla la te moom rek moom ko xam te yàlla moom la ko xamal moom insa te insa mu koy xamal ki mu ko bëgg xamal aajowul si sa njàng wu rëy aajowul si sa bokk bu rëy yax wu rëy aajowul si sa juddu ci sa xam-xam fu mu tol waaye mi ngi aajow si sa ngëm ubbi sa xol te yeesu almasiw moom mu defal la boobu moom mu defal lool te ba tey ñu mën a gisaat li nga xamante ni moom lañu yàlla mën a xamal si kàddoom si naka lañ ko mën a xame waaye mbind mi nee na lu bët gisul nopp déggu ko xel xalaatu ko loolu la yàlla dencal ñi ko bëgg fekk nag ñun la ko yàlla won jàll ko ci xelam xelum yàlla mooy leeral lépp ba ci xalaati yàlla yi gën a xóot kan ci nit ñi moo xam jëfi nit xanaa xelum nit mi nekk ci moom rekk a ko xam noonu it kenn xamul yëfi yàlla kudul xelum yàlla ñun nag xel mi ñu jot jegewul ci àddina waaye yàlla yàlla nu ko sol loolu nu yàlla may yëglewuñu ko ci ay baat yu soqi ci xam-xamu nit waaye ñu ngi koy yëgle ci baat yu soqikoo ci xelum yàlla di di jëfi xelum yàlla ci ay baat yu mu ñu sol nit kase lu nangu jëfi xelum yàlla ak ndof lay doon ci moom du ko mën a nangu ndaxte ku yor xelum yàlla rek moo ko mën a ràññale nit ku yor xelum yàlla dafay àtte lépp moom ci boppam kenn du ko atte kon si suñu euh, jukki boobu noonu jukki bi mu ngi jóge ci benn téere itamit bu nekk ci biibal bi si euh, linjil ma jukki woon ko waaye ba tey si suñu doxalin ngir xam yéesu ngir xam ay mbir dafa am solo mënuta ñàkk sax ñu war a mën a nangu dëgg yi ñu mën a xam ni dañuy dugg si maanaam anam boo xam ne dafa xóot dafa làkk ay mbóot yu xóot mu nekk lu am solo te taalibe insa yi doon ko tuddee doon ko waxe woowee mu ni nii si beneen eh, jukki beneen saar si linjil yàlla feeñu na ma xamal ma mbóoti mbir mi mu tëral ni ma leen ko bindee si kàddu yu ñëw kon ay mbóoti yi biir la yoo xam ne yàlla mu koy xamal ay nit mu koy xamal ay yonent kon ay mboot la yoo xam yàlla moom moo koy moo koy xamal moo ko xamal yonent yi waaye moom moo ko xamal itamit taalibe yi ndaw li waxoon li yi kàddu si ay ngërëm mu ni cant ñeel na yàlla bàyyi suñu borom yeesu ñu sotti si sunu bokk si yeesu lépp luy barkeel si baatin te nekk ca bërëb yu kawe ya ndax ba àddina sosoogul tànn nañu ci yeesu ngir ñu mën a teew fa kanamam sell te ñàkk sikk ci kaw mbëggeelam séddoo nañu lu jiitu def ñu ay doomam jaarale ko ci yeesu almasi bi ndaxte looloo doon yéene ju rafet ji mu tëral ci coobareem na ndamam jolli ndax yiw wu rëy yu mu ñu sotti ci soppeem bi moom jot nanu ak deretam ji ñu tuur maanaam baal nu sunuy bàkkaar ci kaw yiw wu yaatu wi ñu wi mu ñu baawanal yàlla sol naka xel mu mat ak dëgg si feeñal nu mbooti coobare coobareem dëppook yeneen yu rafet yi mu jaarale ci almasi bi mu teral ne bu jamono ji wéyee ba noppi ba lépp mat dina dajale lépp ci kilifteegu kilifteefu almasi bi muy ci kaw muy ci suuf kon lii nekk ay saar ay aaya yu nekk ci linjil bi tamit linjil bi ci linjil dañuy fi xam wala linjil daf ñuy xamal lépp li nga xamante ni yeesu def na ko am na xam-xam boo xamante ni dafay wax ci mbirum dafay tënk mbirum jàngu bi mbooloom taalibe loolu mën na rax e, cosaan ak aada ndaxte fañ ko ku nekk ci réew ma nga nekk am nga cosaan ak aada te ba tax mu mën a am léegi-léegi ay wuute wuute si nit ñi wala xeet yi wala réew male naka lañuy defee seeni ndaje waaye am na xam yéesu goo xamante ni am na maanaam xam yéesu googu du rek ni ma koy waxee boobu ba léegi li nga xamante ni moom la ñu jàng téere yi li nga xamante ni moom lañu ñu seedeel li nga xam ne du li nga xamante ni ñi nga xamante ni moom ñoo dox ak moom ñoo àndoon ak moom lu si ñetti at yi mu nekkoon si liggéeyam si fanweeri at ak ñett yi mu yi mu nekkoon ci kaw suuf waaye si kaw loolu daf si war a yokk li nga xamante maanaam baatin la li nga xam ne daf ñuy yéege ci beneen diggante ci suñu diggante ak suñu boroom ci suñu diggante ak Yeesu ndaxte mooy ngëm li nga xamante ni bët mënu ko expliquer yonent yàlla ayooba dafa waxoon lii samari nopp déggoon na ñuy wax ci yow maanaam njàngale yi ñuy jàngale si kàddu yàlla mu ni samay nopp déggoon nañu ñuy wax ci yow waaye léegi samay bët gis nañu la maanaam am na beneen dimension beneen diggante ak yàlla bu tax mu mën a dund li nga xamante ni moom la yàlla di wax jaar ci ay jafe-jafe ay dund yi nga yi nga xamante ni da gis si boo gisul mu ak ma ne waxee noonu da ngay gis dëgg-dëgg loxo yàlla ci li nga jaar nga xam ni lii du neen yàlla moom moo la jëlee ci jàmm si situation bi ndaxte ni ñi mën nañu wax la boo gëmee yàlla doo nekk si ay jafe boo nekk ay jafe dina nekk ak yow mënuloo ko gis waaye boo demee ba nekk ci ay jafe-jafe nga gis ni yàlla joona loxoom ci sax ay jafe-jafe yooyu bu boobaa ngay mën a gis dëgg-dëgg la kàddu yàlla doon wax ndaxte la la nit ñi doon wax kàddu yàlla la woon waaye boo ko dundee boo ko jànkantoolee boobaa ngay gis dëgg-dëgg li nga xamante ne moom mooy kàddu yàlla lii kàddu yàlla bëggoon tekki dafay weesu rek la nga déggoon waaye la nga xam ne da ko dund da nga ko expérimenté da nga ci jaar jaar-jaar lay doon si yow te loolu mooy li nga xamante ni kenn ku nekk si ñun ku wékk léppam si yàlla noonu la war a digganteem ak yàlla foofu la war a toll mën nañoo dégg wala ñu jàng ay mbir yu bari ci yeesu fu mu cosaanoo dundam maanaam ni mu juddoo ak kéemaan liggéey bu am solo bi mu def ci kaw suuf sarax si mu saraxe boppam joxe boppam ci bant ba ñu daaj ko fa mu dee waaye itamit dekkeem bu am doole jooju bi nga xam bi nga xam ne suul nañ ko ñetti fan yéegam kaw asamaan maanaam teewaayam ci biir jàngoom ci kaw suuf waaye dellu si gi nga xamante ni dina ko dellu si waat bés àdduna bi yépp teg ci seeni bët ngir dajale ay taalibeem ni mu ko diglee ngir nguuru ci kaw àdduna ngir nekk kilifa si jamono ju bees ji ñëw waaye dafa am solo loolu nekk luy dëndu lu dëggu si ñun mu nekk loo xamante ne dafa mel ne lu ñu nekk di dundu léegi mu nekk lu am solo dina nekk ay mbir yoo xamante ne léeg-léeg dina jafe nand waaye dëgg-dëgg képp ku am ngëm xam na ni ngëm daanaka noonu lañ koy tegtale ay mbir yoo xamante ni dëgg-dëgg dina jafe nettali expliqué taalibe yi dundoon nañu ak yéesu gannaaw bi mu leen bi mu leen woowee def nañu ak moom lu tollook ñetti at ak yeesu nekkoon nañu ay seede si lépp lu mu mos def wala lu mu mos a wax kéemaan bu mu bu def te nangu woon nañu ne moom mooy almasi bi nangu woon nañu dëgg gi nekk ci kàddu yi mu doon wax ak doole jeeg kàttan ji nekkoon ci li mu doon wax ak la doon def nekkoon nañu ak moom guddi ak bëccëg wante teewul yéesu wax kenn ci ñoom yéesu nekko ni ma yàggee ak yéen te ba tey Philippe xamuloo ma ku ma gis gis nga baay bi kon nag nan ngay mën a laajee naan wan ñu baay bi benn ci taalibe yi mënu ko woon mënu woon yeesu wan ñu yàlla rek te loolu doy nañu donte def nañu ak moom ñetti at waaye lii la ko insa tontu ni ma yàggee ki yéen te ba tey Philippe xamuloo ma ku ma gis gis nga yàlla kon nag nan nga mën a wax laaj ne wan ñu baay bi kon dafa mel ni dafa am fenn fu Insa nekkoon waaye taalibe yi àgguñu woon foofu si baatin am na loo xamante ni àgguñu fa woon ci baatin si li Insa doon jàngale loolu moo tax ñuy ñaan léegi-léegi ni ko benn ci ndaw yi defee woon te si ñaan googu lay tàggoo ak yéen muy lu am solo mu ni li may ñaan yàlla sunu boroom limay ñaan yàlla suñu boroom yéesu Kirist di baay bi yelloo ndam mooy lii mu sell sol leen xel mu xóot te xamal leen boppam si leeral seeni xol noonu di ngeen xam dingeen xam yaakaaru ëllëg ji yàlla wooye dindam lu xel mënta daj li nekk ci cër bi mu dencal gaayam yu sell yi ngeen xam it ni kàttan màggee ni kàttanam màggee ba jéggi dayo jëm ci ñun ñi gëm dëppoog dooleem ju ràññiku kon ndaw li wala yàlla suñu borom mu ñuy fàttali jaare ci gémminu taalibe bi ñi di wax li may ñaan yàlla suñu boroom bàyyi suñu boroom yeesu di bàyyi bi yelloo ndam mooy lii mu sol leen xel mu xóot te xamal leen boppam mooy ñaan gi yàlla sol ñu xelam te xamal ñu boppam ndaxte ay mbir yàlla dafa yaatu xóot na waaye yàlla bëgg nañu xam ko ndaxte koo xamul mënoo ko topp koo xamul mënoo ko dégg déggal koo xamul mënoo ko sopp koo xamul doo ko mën a tekkal kon mbokk yi xarit soppe yi yéen ñi ñuy déglu ci suñu émission suñu yaakaar si leer gi fm 97 point fii ci ndar ak yéen ñi ñuy topp ci suñu ay page facebook youtube tiktok instagram ma fàttali leen kàddu yi wala ma bàyyee leen kàddu yi suñu ngëm warut nekk répétition maanaam loo xamante ni dañ koy def rek waaye duñ ci bàyyi xel lu traditionnel loo xamante ni dafay mel ne diine lu bëri li ñuy def dañ koy def rek waaye xamuñu tey mënuñu bëri mënuñu la faram-fàcceel lañuy def lan moo ko sabab waaye dafa war a nekk lu dëggu lu jóge ci suñu biir xol te ñu moytu ndaxte yàlla doon na wax ak waa ban Israël ci jamono yi benn yonent di leen fàttali mbir yooyu ndaxte dañu demoon ba seen xol amatul benn yëg-yëg ci kàdduk yàlla defatul leen dara te jamono ji daanaka dafa mel ni ñu ngi toll foofu foo xam ne nit ñi kàdduk yàlla defatul leen dara mbokk yi xarit soppe yi am di jàmm yi bu ngeen amee laaj mën ngeen ñu woo si 77 335 55 91 te dañ leen su indil ay tontu si whatsapp yéen ñuy topp si facebook youtube instagram ak tiktok si suñu ay émission sunu yaakaar it ni ngeen baaxoo di ko def mën ngeen ñu yónnee seeni laaj ci whatsapp wala itamit si commentaire bu ko defee nañ leen si indil ay leeral di leen sant di leen gërëm bu baax a baax di ñaan yàlla sàmm leen yàlla sàmm ñu yàlla defal leen jàmm te yàlla defal ñu itamit jàmm def jàmm si suñu réew mi Sénégal dig daje si beneen jukki beneen émission sunu yaakaar jërë ngeen jëf